mbokk jullit yi mbokk taalibe yi mbokk ñiy saturé bisub tedd bi nga xamé le 28 janvier 2023 yow mi nekk Amérique Espagne Italie gaawoon nga abonné ci Mbadiar TV te bës kolos bi da ngeen ko and ak Mbaye Ndiaye bu Mbadiar directement ajjuma ci guddi bu ñu jank ak kon karim waxtaal subhanahu wa taala fo mën nek ci aduna bi abonné Mbadiar TV te bës kolos bi di nga ko am ak seen mbokk Mbaye Ndiaye bu 76 la 751 71 45 Mbadiar TV dal teg nay bànqaasam ci njiit satului